daaru salaam jam sair la jàmbaati waral daaru salaam na ñëpp jub taxaw ca kaw lu sant soxna jaara jar na ko borom daaru salaam jam sair la jàmbaati waral daaru salaam jam sair la jàmbaati moo waral سلام سائل الجنبات نور المر سلام سائل الجنبات نور المر سلام جم سائر الجنبات المورم دار سلام سائر الجنبات المورم تقد يقد ين جمت توبا تلا أنت تمرد تدنغو خيت تول يا سنجار مسلل تقد يقد ين جمت توبا تلا أنت تمرد تدنغو خيت تول sell yaa di yëkk di yanu jëme Tuuba sala anta dem roon te donga xëy ca tool yaa soxna jaara moo sellal di togg di yëkk yanu jëme Tuuba tala anta dem roon donga yaa xëje doole yaa nga jaare moolu amre mam seexera faal jafal ba muy leen moolu abe mam seexera faal ko jafal borom reen sëriñ moolu ame mam seexera faal jafal ba muy leen sëriñ moolu ame maam seera faal ku jafal bari leen sëriñ loolu amee maam seera faal ku jafal bari leen maam seera jaara yàbb ni giij mbaam bu nan wal wal déggatoo fi kenn na ku gantu bay baña wal soxna jaara yàbb ni giij mbaam bu nan wal wal déggatoo fi kenn na ku gantu bay baña mar mbaa ku gantu bay baña wal soxna jaare yaa benn géej mbambulan lu wal wal déggatoo fi fi kenn ku mar mbaa ku gantu bay baña fi kenn ku mar mbaa ku gantu bay baña fi kenn ku mar mbaa ku gantu fii soxna fan jaxate yow sigil nga waa njaxate mbambulan nga doonaxate ndax ndax sa dooma jar waxate jaaraama soxna fan njaxate si sigil nga waa njaxate mbambulan nga doo naxate ndax sa dooma jar waxate sëriñ Seex Saliw yàlla ko yàlla saxal Tuuba borom jàpp xabaan borom la ganang dooka borom daaray njurul ah. borom daaray umul xuraa daaray daarul daaray alimul xabiir ah, ah, si Seex Saaliw ko yàlla saxal Tuuba borom daaray geloor ah. borom daaray ah. saxal tuuba seex siñ salu yal na saxal tuuba borom njàpp ndal xabaan borom laganang dooka borom daaray njurul borom daaray umul xura daaray darul xudus ñub di ibulaay sëriñ Saliou Mbacke yal na ko yàlla saxal Touba borom jàpp naan xabaan borom laganang dooka borom daaray njurul borom daaray umul xura daaray daarul xudus daaray alimul xabir sëriñ Saliou yal na ko yàlla saxal Touba

la

particulièrement maa ngi beral sama soxna jugal taxaw damaa bëgg damaa bëgg ñu ñaanalal ma ko moom soxna Mariétou Thiam mii maa ngi giñ ci sëriñ Saliou li may wax bu amul yàlla bu ma fanaan billaahi jigéen gënu ko Serigne Saliou Mbacke mi ma yaakaar sedd na ni weer dana dee mu jël xaalisam yépp dugal ko ci sama compte ma def ci lu ma neex barke Serigne Saliou Mbacke yëkkati na xaalisam ma am soxla Sénégal mu yónnee ko sama yaay lii ma sol nii barke sëriñ Saliou mi ma yaakaar moo ko fay xotti ko man damaa dem ca kër ga mu ni ma yére yaa ngi nii moo kaftaan bi ma soloon ci suba yaayam soxna Kumba Dàkk ak papaam bañ nañ ko ba dañ naan ma yaay sunu sëriñ moo tax soxna su baax a ngi nii soxna su ma yërëm soxna su ma jàppalee ngi nii te Serigne Touba tax soxna lu ma ci dara wallaahi wa rabbul kaaba ba léeg daf may xool sax yërëm ma ngir ngir coono yi may daj barke Serigne Touba daf may xool moom yërëm ma ba démb ci guddee ci mujj tiim na ma di ma ñaanal ndax ay ndax yu baax sëñ Bamba amul morom yu baax مداقما بارز من براس من بارز بارز لا إله إلا الله na ku lew toog moom bu yàlla ngay lew lay lay la la birasuma barasani birasuma jugal magal bàyyi Serigne Saliou Mbacké amul morom su ma mënee la ku lew toog moom bu yàlla ngay lew toog birasuma waaw waaw barasani bamba lay lay la la bamba nee na ku lew toog moom ahmada مت أمامرا براسما بارسمي براسما سنة ملالا كل دوم بريالا ليلا دوم جاري نندر muy bëgg a mel ni ki daaro muy bëgg a mel ni ki daaro di koy jàllax mu wey ndaka lay la lay lay la la jaari na ndar muy bëgg a mel nekk daaro ñu daal di koy jaala bamba mu way Ndakaaru xalamee yaari guddi Ndakaaru lay lala dégg wax jëmbal ma wax bi salikal ma biita Cheikh Babacar Cargaan Babacar Cargaan Serigne Mame Marmane Ali Diouf Calamba Serigne Touba ñi la woowoon Serigne Babacar Cargaan Ali Diouf koy dee dambi aljannatu laay Calamba yi le ko daanee keroog dalee na woo. waaw waaw laa fa pencum laa mbaay. danaa na woo. fa pencum laa mbaay. te naa danaa leen tàggalee ay la xasaay. bojji ay. buy dammoo te dammoo li dóor ak yeew amul far jàmm la la la la muy bëjji ay góobar ak a bon ah di feeñal dammoo muy boole dóor ak yeew amul far jàmm Seex Bamba Mbaa Marondi. lépp ma nga naan ma nga naan. lay lay la laa te naa baleel Seex Bamba. Mbaa Marondi. ma nga naan Mbaa Marondi. ndeysaan. Sëriñ Mamar Maane. tontu booba ni ko dangay kàcc dañuy dem Tuuba foli la tey te gisandoo ba tànk moo gën a yomb nga wax noo lànk dangeen yi tas ma dal di jaxasoo murid yi xaaju mbër ma dal di laxasoo muriyan Tuuba xibaar ko Ahmadu Bamba bàyyi Sëriñ Saaliw borom jàpp ndal borom ndookaa borom xelkom borom yurul borom daaray ñaarul ak bëri yërmande nee woon na duma dem bàyyi leen lil xaadatil wujur wal ma saaliwoo النساء اليوم للخادة الوجوه والمسالو سالو بالله والجذب وإني سالو wallaay sant leen Serigne Sall wallaay nu way sëriñ saal wallaay at war na ku ne tey ma way sëriñ saal wallaay boo xilaat bani loola mu romb loole wallaay noqiyaa ci ay royam mu jàll loole wallaay waaw jàng ko déedéet jàng ko alma alma alma ak leen suuf sëñ Saliou sëñ Matar dooguma la yow taxaw da ngay taxaw ah yidi anaat dana layal xulamaa الأولياء لا يزال الخوتي وأولياء خسيدتي خسيدتي خسيدتي خسيدتي فقط خسيدتي قصائد الكرام ولتخوض أبدا خير المرام هديتي محجلة كل ملك كان مناسيا وانسى الملك ما توجه النصارى الله نبي لا إله نبي لا إله نبي لا إله كسب مام شيخ إبراهيم فال نبي لا إله نبي لا إله لبي لا إله لا إله إلا الله ملكت بربي محيي الموج واليمين بمدح الذي أنزاه وسال فلكك الخمين مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر ولي كان بسمي مرادي كوني عبد ربي قديما من وغاتبهم بسكري ولو بيسألني مساياك yaa kulli laral kulli xaddalat walakinaha jalat ani siiri wanal ni maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihim muxayabatun fa taqraan suuratu najmi muhammadunul muxtaaru laa xalqa mislahu laa xalqa laa xalqa mislahu dootu bi ni ku mel ni muhammad rasulullah laa xalqa مثله عليه السلام عمن له الأمر كالحكم محمد نور محروف ماع ومانع وبالعكس محسوس مسون حن الوزن مجيب مجاب مرتد محلق نداء منصوم إلى الحب واللجم مدين جلانا تجنا معلل موسوم من الناس والوهم مدينة علم مسجن منة لنا جريء ومنجن من ذنوب ومن سلم ما الله هني بن نبي كل فاسد وسجد بي عبدا خديما بلا خم من الله رب النفس أبقي صلاة بتسيميل مصطفى المجل اليمين أدنى جينا بانيق بجينا ددوك جن نجي سرين سالي ودمنا أدنى جينا بانيق بجينا ددوك جنة ngir sëriñ saaliwu dem na àdduna rët na barke dem na meññan ma saay na ngir sunu waaja dem na àdduna wéy na konom ya war na mbaar mërës na ngir sunu waaja dem na jëkki yoxi neen mbaa yëngu ci neen mbaa def lul yoon yëpp wéy na ak gone wéy na sa cër yi wér na wërsëg wi doy na jaamoo ko war na defar sa jàkka tey fonki ràkka tey aji màkka yëgal ni jot na yar mu set lool ngay rag sa yeel sab xol tilim lool fóot xol bi jot na dëddul ma duniyaa daal bexeem yaa watul yu bon yow ko jot na te foglu ak dee te xaru ak dee yow bala ngaa dee xaru ko jot na fàttalikul dee te gu nga way dee ku nekk day dee fàtte ko wéy na ay na sunuy yaay ay na suñuy baay ay na suñuy gaay ñi ñëpp wéy na sali muhammad seydina muhammad allahumma sali ala seydina sali ala muhammad seydina muhammad allahumma sali ala seydina صل على محمد سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد murtada lanu yaakaar ku sopp sëriñ murtada seydina muhammadu balaay sama jangay alaaji seex mbàkke lanu yaakaar fii ba jëm seydina muhammad seex bamba sali ala muhammado seydina fi ba bayti soxna loo lanu yaakaar fi ba fa nu jëm seydina muhammad Cheikh Bamba salli ala Muhammad sayyidina Muhammad balay sama jangay alaaji Cheikh Mbacké lanu yaakaar fii dafa nu jëm Muhammad سبيل مع الجميع جمك عمد ربي العظيم حمدا كثيرا مصليا على الكريم خد الورالم جل مكة أشكر سال عاصي المجيد شكرا يلاقيه المزيد مصليا على الوحيد بك الكل وكل njol maka sakarto isqa sanin bi xidmatin may sanin za xidmatin fil alamin wafa ku sopp yonent bi loo bi ma yuhibbu ma ci yonent li da ku sopp yonent bi ya rabbana ya rabbana jug leen màggal yeneen yaa rabbana ko sahyana jug leen màggal yeneen lil Mustafa la si turaam lahu salaatu wa salaam maam tidaa ikullahaam rumtu min al mokar njol makka salli ala babil uda na il madamu lin nada leysi layɗa mayraɗa babil ola ana soppe yonnentiɓe laylatu mawlidinnaɓe laylatu mawiri ceyannen laylatuma witaɓe hotoresi bayi sal mbakke saway duñe wayi kenen saway doka ko sopp serigne saliw desulla ɗom digam lenen sa dinede ku sopp Serigne Saliou sa waay du ñee waay keneen sa waay du xàcc jëm feneen deesul la gëm digam leneen ah, sa diine ana soppey Serigne Saliou sa waay du ñee waay keneen sa waay du xàcc bay sal borom jenne desul la gëm leneen sa diine man de yaa doy sa waay du ñee waay keneen ah, sa waay du xàcc Baye Sall borom ñenne desul la gëm ci gëm leneen sa diine ana soppe Serigne Saliou ku weddi li demal la gan Seex Isaa di mbar mooma no gan yaram la woote naag sagam Bamba ko ñaan ci xarnu bee waaw tàmbaleeguma tàmbaleeguma Touba da daan jël yàppam deretam ji di ko maase xasida yi ndeysaan ay waay jugal sëñ boobu jugal jugal laa sa abdullahi xaadimu rasul bunya wa uxra ismatan wa xay rasul laha sa abdullahi xaadim rasul dunya uxra ismatan wa xay rasul laha sa abdullahi xaadim rasul dunya uxra ismatan wa xay rasul bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وقديمه وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام حبيبك الذي كبيته الملام صلى عليك أبدا ما السلام والله والأصحاب ربنا السلام حسن مقام الدنيا كل مقام يا نور كل عابد ثم وقام أنت الذي أهرجنا من السلام بك النور من أباك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك زينت التمام أنت نبي ورسول والإمام doxal doxal doxal ba ci kanam ndeysaan kii mooy Serigne Saliou Diouf ki ma tudd baayam la Baye Omar Diouf maa dajeeg moom Sacré Cœur mu jox ma aayatul kursi yu bu nu dugal ak faatiha ma jàng xasida ba noppi boobu ndeysaan boobu boobu ndeysaan maag Abdou Khader Gassama yàlla na yàlla yokk leeram ñoo toog mu yëkkati fooy yi génne ko jox ma ko keroog la ma wax baat bi ni ma lu jóge ci xol ci xol la jëm lu jóge ci làmmiñ ci ay nopp lay yem xasida yi sëñ Tuubaa yi ku koy ku ko ku koy yëkkati ku koy yëkkati da ngaa da ngaa war a ni tey moom tey la sunu bisu faatu sa xel warta ne ci yeneen lu am pas-pasu yëkkati xasida yi sëñ Tuubaa sa mbóotum xalimaa rab dabbasu. Allahu kulli haabidin saama waqaam xusta maqaaman duunuhu kullu maqaam yaa nuura kulli haabidin saama waqaam بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سهيا فالتمام أنت النبي ورسول والهمام بك انقياد صالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أصنع احترام جاء yaa qaidan li min ilahika almaram tubtu li rabbi zaayiran bi zannizam laka wa qabluhu habawta bi izam hadiyati ila jumaada saaniya min almuharrami alqutufudda muntafiya faraxtuhu bi qiddamin la saniya laha min alqiddami laysat faniya yasurru sayidi xurufi daaya ila jinaanihi ilayha saaya hadiyati ila nabi saafiya busharatan lahu xuyuran dafiya عاليني فدور منه قالي أحمدنا رتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست قافية إذ الحياة للعباد شافية ودي لربي وله للخاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية ناجيت فيه li jumaada saaniya minal muharramil munilat daaniya amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin ayasa minillahu indahu inda jeewali iblisa badari nafaani xayrillaahu fi ndakaaru fi ndakaaru kulla azan lii jarahul makaaru allamani rahmaanu fi safina bi annani alxadimu zil madina bara anillahu ladaku nakiri min kulli jalibin ilal manakiri azaba anillahu fi karam basa qablu mubarizi wa anni xalbasa dahaniya rahimu inda dawmi lahu bima aghna ani tasawumi يسر للمنى لدى لبر ولي من خاد لي ما خاب عن كل ولي لي خاد أهل بدر الأسودا من زهزه الواشية والحسودا يقودني حيث أكون الله تبشير لا إله إلا الله ساخ لغير الله فيما ينبى ما ساء قلبي وأعلى الجنب لله الوسط عند الدلوى وسالني وما يجر البلوى كتابتي خبل لدى البهور كفت حياتي حيل المدحور هل من العلم وكفاني الكافرات لم ينحني عند البحور المغرقات داع لخمر أو دواع فاسقات يسر لي الجميل عند المهلكات ما سانني عن جالب للمسركات هبات من لي كان عند الواسحات خادت لك الكل رضا والساتحات مد لي الأنوار عند الظلمات وظالمين من كفاني الصدمات saadati inda al ilahi lahi li zaharat inda zawil malahi lam yanhuni inda zawil khumuri siwa rida bahlu umuri taharani allah lada ahli alkitab min alshaqawati wa min kulli itab akramani inda zawil ishraaki man xaadani ilayhi bil idraaki naajaytuhu biya nasiru ya wali kafaytani iblisa hinda jeewali safaru bam saashin junnatun safaru bam saashin junnatun sahaxtali rabbal bariyatil badan saa tali rabbal bariyatil badan أدركت لي باركت لي في من جلا ومستكن وظاهري وباطني فيك سكن ملكتني ما اخترت لي عز الزمن وكنت لي بلا انتهاء بالأمن سقيتني ماء بغيبك قطرا سفت جملة خلاتي بخرا شهدتني بما كفاني المحن يا من لفلكي بفيدك الشحن جزتني سرا نفاذ والفتن بخلفاء منهم laysul xatan nafatani bi fil furadi wassunan wa sahbi wal amlaaki azamtal minan naba وهبت عداب من ربي لهم لغير ضري وعدوي لم يعن ترسي عن الأمراض صحة البدن ودها ربي مخرجي بددا شيخ إبرافال خط فخت الرجال شيخ إبرافال قد جست المجال إبرافال innaka alkamaal wasalta xaqan bisil jalaal ibrahim faal lam yasal cheikh ibra faal cheikh ibrahima faal cheikh ibra faal riqaaba fil azal hatta sabaqta في الكمان وما في سبقك الأثر من رام مثلك عجز فلا يراه في المجز ذلك وعد قد نجز شرواك ليس في البشر قدمت أحمد الخديم قدمت أحمد الخديم بإذن ربك الخديم شيخك نور من خديم من شك فيه قد خسر يدخل في النار الجحيم ثم يسقى في الحر درهم سلاسل ما زقوم نعوذ من ذلك الشرر من شك في إبراهيم فان من شك في إبراهيم فان shariatul mutahara xaqiqatul munawara fa kullu za qad arafa walam yakun mustamila shariatun mahsuma xaqiqatun mahsuma walaysa min qusuuma fi haazal xawlil agar salaka fil xaqiqa taahiratan naqiya wa indahu wasila wazaaka ahmadul abar xaqiqatul munawara xaqiqatul munawara fii lawxin mahfuuzin sabata shariatul mutahara fil kutubil munazzala yaa man yashukku fii tariq Ibrahima Faal li nashafiq yaa man yashukku fii tariq. يتفق فتب إلى رب البديع قبل الممات واستكر إن لم يتب في العزم يؤخذ بالنواسية يسلكه في الزبانية مخلدا عذبا أعوذ بالله العظيم من شر مقت والمليم وشر شيطان رجيم هنا وفي غد أمين ثم صلاة ربنا على الذي يشفعنا محمد خائدنا إلى النجاة والنعيم سيشان làqu dox na ci mbu ya fande na ngir jot mébétam sëriñ saaliwu mbàkke sëriñ saaliwu mbàkke sëriñ saaliwu bismillaahi maa ngi leen di jaali jëwrinu cheikh bamba borom kamaal yi bismillaahi maa ngi leen di jaale jëwriñu Seex Bamba borom kamaal moo fi desoon ci doomi Seyxu Bamba buur yàlla jël ko mu fekki Bamba ca yàlla jël na jël na jël na jël na buur yàlla soxna waalo buur yàlla jël na soxna waalo buur yàlla bu leen ko wóolu Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké moo fi ne woon xalifatul ilaahi moo doon xaadim rasulullahi moo yasalaat tarixatul murid yi ba ñëpp xam murid yi xam marid yi moo dalaloon yëpp jaaxle waaye de tey ji xol yëpp bég na ci loolu cay Mbàkke Balla yaa matal liggéey bi xutbu zamaan bi yaa fi roy yonen bi sëriñ Saaliw Mbàkke sëriñ Saaliw Mbàkke liggéey bi mat na xol yëpp bég na waaye sa dem gi tax na xol yëpp dee na sëriñ Saaliw Mbàkke sëriñ Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké xëy na ci yàlla xëy mu teel ci naaj wu tàng xiin wu ñuul du tax mu naa fajar gu teel laa xëy si woon naa wàcc dem Serigne Saliou muñ na muñ na muñ na muñ na muñ na muñ na ba daj ci mébétam te kenn mus la dégg njàmbatam natt lu wex wex mu gërëm day mel ne kuy wanaasu lem sëriñ saaliwu mbàkke sëriñ saaliwu mbàkke mbàkke ñëw na ba dem te yàqu fii te gën du wax ni yàggu fii tawféex ju la dunde fii satal naa wecc aw sasam sasas wa yeneen ba toppi woon sëriñ bamba man ca góor ñëwoon def nga ca lool ka digle woon nee na la jàpp ngërëmam leen xaadatil wujooru wal masaali woo bi tey wal jës bi wa inni saaliwu leen xaadatil wujooru wal masaaliwu bi tey wal jës bi wa inni saaliwu fitan yamaat wa bayan raabihu yan wuy laya faaizun aw saaliwu ca yàlla laa ilaha illa laawu muhammadun arsalawul ilaawu ca yàlla laa ilaha illa laahu muhammadun arsalahul ilaahu salaa wa salaama alayhi laahu fil ali wa saabi wa man walaahu ca yàlla jël na mbàkke balla aysa borom ngotak nguur dem na ni ak solom sa ca yàlla jël na mbàkke balla aysa borom ngot ak mbuur dem na ni ak solom sa ca yàlla jël na baayu soxna moomi naqar wu tiis wi mas la am ci réew mi ku baax ka dem na nii ba génn àdduna wallaay lii day metti na wallaay lii day metti na ci àdduna woy fu ñu jëm tey fu ñu jëm xawma ko man cey ku xam fu nu jëm nang nu ko wax nun suuf tiim naa baayu soxna moomi suuf tiim naa baayu soxna moomi wuy àdduna tukki ku yóbbu jekki Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké mooy samsu fadlu moo fi roy yoonen bi jant bu mu wéy kenn du gis biddiw bi moo leeraloon biti leeral moo leeralaat jamono xallu yoon wi keroog ba yonen ba di waaj demam nga balaay sa laay tëkkaleeg sa dem gi mbàkke wàcc nga al yawma akmaltu lakum la yàlla wax li diinukum gaañe di bég xamuñu lu tax ndekete booba muhammadu rasulullahi day tàggu kenn mënu ko dégg keroog madina bur yàlla seem ja naa ko wax na muhammadu rasulullaahi faatu naa dama lay rey abubakari ni siddiixu moo ko dalal waaye teewul keroog mu yuuxu abubakar jooy na jooy na jooy na ba bëtam ya muuru rangooñi saaba yépp maasey tuuru abubakari ni siddiixu zu sidqin wal wafa rafiiqu nabiyul mustafa مصطفى مصطفى مصطفى غار أنبو أبو حسن الفاروق شرواو نادر بتزدين مصطفى يزيو أفي صحب من ضابنا فانز الحياة لو النور ثم النور نعم المبوي أفي صحب من ضابنا فانز الحياة لو النور ثم النور نعم المبوي asahba rasulillahi inni xadimuhu muhibban lakum fillahi wallahu yaglaw illallah waaw waaw waaw maam Cheikh Ibra la ilaha illallah la ilaha illallah maam Cheikh Ibra jaarama maam Cheikh Ibra Fall laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu illallah maam Cheikh Ibra daa bay maam Seynabou Ndiaye jaaraama maam Cheikh jaaraama maam Cheikh Ibra Faal bu du koon moom faawaal Bamba riir nu daaday maam Seynabu Njaay jaaraama maam Cheikh jaaraama maam Cheikh Ibra Faal laa fa laa ilaaha illallahu laa ilaaha illallahu Fall Cheikh Ibra laa ilaaha illallahu laa ilaaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu maam Cheikh Ibra daa bay maam Seynabu Njaay jaaraama maam Cheikh Ibra Faal tani laayi bil munaajaati wa abadan axna yadi an yaati dalala al ulama wal awliya man laa yazaalu quwwati wa awliya xasiidati faaxat qasaa'id al kiraam wali taquudu abadan xayra al maraam xasiidati faaxat qasaa'id al kiraam wali taquudu abadan xayra al maraam hadiyati muxjilatun kulla malik kaana munaazian waxza al malik maa tawajjaha nasaara allahu